El Hadji Ahmed Aidara APR day ah comme sabar gu tas day ñëppay feccandoo box fobli ne dama ne la parti yu Sall ba day waaw ma ngay xar na genn xeetu xooteeku goo xam ne kon maar di taali nga xam ne maanaam ñoo fa nekkoon ba dara nekkul dara day waaw ñoo nga xam ne tamit mooy punkal yi nekk ca biir day na wax suñ lente yoo xam ne kon maar di taali laa wax dama ne la kër Macky Sall googe ma ngay jax-jaxi ma ngay lakk de ma ngay tàkk dëgg sax docteur Moussa Diaw waaw nee na mbalit mi ci boppam la ñu gën a teraangaal ñeneen ñaa recyclé yi waaw ñooñu la ñu gën a responsabilisé loolu ne kon day indi ay frustration maanaam day am ñoo xam ne kon dañuy mer sur quotidien lu jëm nag ci wàllum guerre boobee nga xam ne kon ma nga am affaire waaw docteur Momar Thiam waaw nee na lii sagalul Sénégal de du sago Sénégal de yàq dere Sénégal ba deru njiitu réew mi laa lay njiitu réew mi day dañ koy ko kaaba ah. ba noppi daal di xam ne ne tuuma yi nga xam ne kon moom la yaa xam bay lal ci ndoddam ni la eh, dara nekku ci dëgg nag laa la wax ah. si seloo ne maa ko wax yaa xam bay maîtriser wul sax li muy wax nag laa la wax te man xam nga lan laa mënula comprendre ah. ay nit tëb daal di tuumaal Aliou Sall mi la eh, yaa xam bay ne bëre di défendre Aliou Sall naan waaw Aliou Sall ah waaw sama xarit la ñeng ñeng ñeng patati patata te yow la ngay défendre xamoo ca dara ca dossier ba laa la wax barke Serigne Touba grand place tey waay wàllum sullente mboot yi la eh, saagante waxi ñaaw ay tuumaalante yu garaaw garaaw Cissé Lo ne dama ne ñetti weeru yàllaa ngi nii yoo xam ne day gisuma Macky Sall dégguma ko Farba Ngom ak yaa xam bay li ñuy wax du dëgg Farba Ngom ne Cissé Lo diwtiir mooy daw ci yaramam mba mm, mm, mm, doon wax de loolee sax ko gën laa wax yéene kaa gi ne amatuñu république la république à terre dama ne la république bi suuf maa la ko wax anniversaire u Macky Sall bi nga xam ne kon amul benn njariñ waaw luñ ciy màggal farata gaa nga feneen laa wax te farata gu njëkk gi mooy Macky Sall li mu war a def mooy fay lakk bi nga xam ne kon moom moo am biir këram booy benn ñaar si solo ak yaa xam mbay mi lé ak Farba Ngom waaw dañoo respecté wul sénégalais yi ñoo leen di fay ñoo leen dëkkal di leen dundal lii day laa la wax tribune yéene kaa ne xeex bi moom moo am ci biir affaire day waaw ñaaw na lool lool lool ci parti boo xam ne day parti au pouvoir la rawatina nag yow nga tuddee sa bopp alliance pour la république dama ne la farata gaa ngi feneen wubil critique yéene kaay nañu rapport 2019 bu pinit bi waaw Sénégal day daal tarxiis nag kon ci ndool di pauvreté laa wax maar day taal waaw waaw dama ne ci fukki réew ak ñett ci Afrique gi yoo xam ne danoo ndool seen loxo jotul seen ginnaaw ca la bokk de maa la wax maa nga seeni budget waaw rëy na lool maa la ko wax ñett ñi ay da mooy day ah li mu rëccu daal ci wàllum vote budget bi naqaralu ko mooy budget ministère forces armées ñu voté ko te amul sax débat i way samba amul sax wax lii la ay da mbooj ne lii luy ndee wallaay mbooj na xëñame koo te loolee teew gaawul day sénégalais yi dañoo sonn lool libération dama leen ak njabootug Cheikh mooy waaj a boppam kon ca buntu palais ba day waaw novembre 2018 la woon ah daal dinay porté plainte nag te nee na gi ci boppam kon na jox genn wàllu milliard la ilaha illallah 500 millions laa wax te gis nga plainte boobu hôpital ba nekk ca kaso Rebeuss lañ ko bind dëgg la infirmerie ba maa ko wax fa seene koo déposé day ca cour de justice bu CEDEAO ca yàlla le y'a de o et de ba laas de dama ne la xolal ma police bi nga xamne nak da xaru kon ca Sandaga Mardi tali la ilaha illallah bok soob li ne deug la Gabriel Bass la police bi kon di Da daa butti boppam de la ilaha illallah 24 heures yene kay ne man kay maa lay expliquer mbir mi ni mu demee lu doy war. Blaise Gabriel Bass la police bi tuddu waaw mom dal tailleur yene ci Sandaga la ab ciseau commencé jam bopam kon ci bir ba sur sa année déedéet da rendi bopam kay allahu akbar la ilaha illallah réew mi ko di ñee ta marché Sandaga ne kon la ko defee tribune yéene kaay ne waaw kii moom di Blaise Gabriel Bass mi lée ay waaye def na lu ëpp waaye l'irréparable lan moo tax ba policier bi lée daal di xaru kon ca Sandaga commissaire Cheikhouna Keita ci 24 heures waaw ne coow laa nga tàmbalee ca commissariat bu Parcelles Assainies 2012 aha commissaire Keita mooy wax du samay kàddu dee cay police bi lée police boobee Le Quotidien yéene kaay nee na yi nga xam ne nag maanaam dañ leen a a a benn ci yoruk janvier bi di ñew le l'observateur ne maître Madické kenya day wee na ndigal la de muju na bay politique aha ah, ma la wax li la de murid dal ndigal tay cay makeeg wa kërëm évidence yéene kaay ne en tout cas Ibrahima Sall day directeur du sikabon woon waaw nee na tey la gëna taw ci gina président Macky Sall nak la la wax les ko yéene kaay ne benn punkal mo xam kon ci walum drogue lay yëngu ca caaro yi waaw da songo ay police dé mar di Italie police kat lieutenant bi lañ bëggoon a yóbbu mu door leen ba dam leen parce que waaji day dafa dëmb bakkanu police tojee meñu ñaari policier allahu akbar waaye moom monsieur si mujj nañ koo teg loxo de waaye li naam mbërë ci na éway eh samba vox sobi li ne en tout cas jàppal ni fanweer ci ñoo xam ni kon nañ doon barça ak balzac di jaar ci géej waaw jàpp nañ leen ca Soumbédioune de doy na waar li doy waar kay Dakar Times nee waaye yow seen TV moom kan moo leen kan mooy xeex seen TV li jaralaaj seen TV daal TNTB canal bi lee zéro image yi leerul baaxul dékilife seen TV bind nañu lettre télévision du Sénégal te weer wu deewu ne ay millions yi la ñuy fay laa la wax yéene kaay muur baan mi ne waa dama ne seen TV kan moo leen di xeex ku leen di singili nii lii lan la buñ mënee nañ fay télé <laughs> dama ne bu dee mën nañ rek nañ fay télé bi la wax wala ñu paanal ko waaye day télé bi ak lu mu paan paan paan paan paan paan ak lu télé bi fay fay fay fay fay fay fay ah jàppal ni suul gaz du ko teree xeeñ te punkal mi xam na ne troisième mandat xëju fii boo paree mën la tëjal